ne ñëwagul. ak seegul. ak seegul waaw. léegi Lamine. waaw. dama lay bàyyi nga def duration bi. dama la waxal ak moom. ngir loolu ngay préparé le 26 ginnaaw bi la ñëw. ñëw jege si jege si. am na ngay wax adversaire bi nga xam ne loolu taw. ñu ngi ñu ngi nuyu assistance bi yëpp. gars yi ñu ngi lay wax ak techno ak techno ngir yàlla. Eh, xam nga lii moo tax fi ñu CNG di tere nit ñi di dugg. waaw euh, ahoudu billahi mina sheytaani rajim ñu ngi nuyu assistance bi yëpp rawatina promoteur bi nga xamante ne moo tëgg combat bi muy waa yaaram Art di wax rek mbër yi nekk fii pour rekk temps yi yëpp gis nañ ne làmb dañoo xaw a siiñ ay bëñ te loolu nag yaakaar naa réponse biñ ci war a def mooy xoolaat suñu comportement te loolu yaakaar naa da ciy am solo parce que ñu somme de sportifs li ñuy def yëpp ci làmb la bokk mais toujours rek ñu siy bàyyi xel complexe yi nga xamante ne ñu ngi ci réew mi te bëgguñu làmb waaw sama promoteur euh, sama adversaire rek ama dara lu ma koy wax comme que ñëwul xam naa ne le 26 dina ñëw te bu ñëwee dina ma fekk. incha allah lan ngay wax Bakary Yarab Ar ak journée bi nga xam ne tey jii moom lay tëgg ak innovation yi ci waram ak surprise ak Gris 2 la lay préparé ak nan la nar a ñëwee. waaw yaaram aar moom dañ leen di bëgg rek parce que ay jeunes lañu comme ñun di ay xale yàgg innové ci làmb ndax gis nañ ne tey li nit ñi di wax ñoom làmb bañ ñëwee dañ fi ñëw ak ay qualité ndax ku demoon ba tuddee mbër tuddee ay drapeau ku si mel ni Jules Baldé Junior mm-hmm. tuddee drapeau ay Papa Yade ay mbër yu fi jóge kon ñooñu yàgg nañ wane ay exemple tey tamit même chose drapeau bi ñu jël ko parrain bi def ko père Doubalès di ñaan yàlla yàlla yërëm ko yooyu yëpp nag ay exemple la rek yoo xamante ne promoteurs yi dañu ci war a xool mm-hmm. ba nga xamante ne làmb kenn du ñu yàpp te loolu c'est important loolu ñu leen ciy félicité di nuyu sponsor yi leen accompagner yëpp rawatina sponsor bi ma sol muy euh, hôtel arc en nga xamante ne boromam c'est mon parrain depuis longtemps yàgg ma accompagner monsieur Patrice Hébert ak euh, jabaram Céline Diouf ak personnel bi yëpp di nuyu daa assistance bi ak bépp fu supporteru Gris 2 nekk ak supporteru écurie maa ngi leen di bëggee wër. sa adversaire loo koy wax. non aw ma dara ma. non mais comme que ñëwul daal xam naa ne le 26 dina ñëw te ñun moom ku ñu xam xam ne amuñu amuñu ñaari façon amuñu ñetti façon li ñu xam ci làmb mooy arbitre bi sifflé ñu dox ci sa kaw ëmb la. te loolu amul dara lu ciy changé. doomu daangu ngay bëreel loolu ñëpp xam nañ ko fii. doomu daangu moo la gën a xam ne bu arbitre sifflé par force damay dox ci kawam. nee na dangereux <laughs> waaw loolu dëgg la man dangereux wu ma mais daal damay ñëw pour loolu mu préparer ko xam ne bu arbitre sifflé ñëpp ngi seetaan billaay damay dox ci kawam bu xeexee ma xeex bu bëree ma ma bu xeexee ma daan ko bu bëree ma daan ko incha allah. non parce que je suis prêt rek nit ku nekk xam nga sa bopp nit ku nekk xam nga sa bopp ñu ngi ñaan daal yàlla defal ñu suture ba ci bis bi yàlla may ñu ndam ci kawam. ku ne xam na ni Gris doy xeexkat la. day def ay gauche droite da nga nar a wor ci combat bi parce que yoon ba jàpp. non doomu dàng mooy xeexkat. Gris du xeexkat. ñeme na daal waaye doomu dàng mooy xeexkat. Gris amul amul gauche droite. doomu daangu moo am gauche ki amul xam-xam. nee na ñeme naa te ñeme mooy xeex. waa da nga nar a xeex wala da nga eh, nar a yor waa jàpp. doomu daangu mooy xeex kat. set kaa wala am xamu wit. man moom bugguma kaaw ba ci combat bi man ak moom sax bugguma bu ma koy daan bugguma kaaw. bëgg naa nag ñu xeex. bëgg naa tamit ñu ñaan ñëpp ñu doxantu ardo ñëwaat. public bi yuuxu yooyu yëpp bëgg naa ko ci. mais yàlla xam na ne ci bëre laa ko bëgg daaneel. ñaata kaar nga nar a indi. non loolu moom yaakaar naa promoteur bi wax na see hôtel arc en Patrice Hébert pare na ci yu doy waar te bëgg nañ suñu moroomu mbër yi nekk fii yëpp tamit mu jàppale leen accompagner leen ci bis boobu. ba ah loolu am na solo waaye mbër yi. mais est booy bi daa ko mobiliser. que booy bi daa ko parce que booy bi tamit ku ne xam nañ dëgg dëgg de. ah kii Medina loolu moom ñun ku ñu xam ci làmb rek. Ah. xam ne dañuy toog sax di gëj a bëre. ndax da ngay bëree ren toog trois ans doo bëre toogaat problème mu mais ñu ku ñu xam xam ne depuis suñuy combat ak ñoom ab Ablaye Ndiaye ñoom Pakala ñoom ñëpp stade Demba Diop la ñëpp xam nañ ne stade bi da daan da daan fees. mais nag gëj a bëre bi mooy waral lu bëree bëri. Mm-hmm. mais yàlla baax na. Mm-hmm. Mm-hmm. jërëjëf doo ko bàyyi mu woote waaw loolu di woo waa Medina rek Fass Colobane Gueule Tapée Centenaire euh, Gibraltar Rebeuss waa Mbao xam nga Lac Rose fii ngeen nekk ñëpp di leen woo ci combat bi. ak kilifa yi nga xamante ne saa yi ñu jugee ñu jug accompagner ñu suñu ay xarit ku si mel ni Cheikh Dabo transfert ñoom Bambis si Ndiaye xam nga ma madame Ndiaye di ko wax nag mu bàyyi sama copain mu ñëw ndax soxla naa ko ci combat bi ak képp koo xamante ne rek day jàppale Gris 2 di ñaanal sama moromu mbër yi nekk Fass am combat yàlla defal leen ndam ku si mel ni suñu frère Benteñe ñoom caatu Fass xam nga Gris Bordeaux euh, Pape Ndoye Lac Rose xam nga ñi fa am combat yëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla defal leen ndam jaajëf. jërëjëf kontaan nañ ci bu baax a baax Omar Saliou nee na le 15 mai arène national ah am na fa combat grand combat bi mu dox ci diggante Matar Guy gi ak ki nga xamante ni moom mooy bebe Issa. waaye du ñu fàtte le 28 ku ne xam na ni. Mhm. Gaston production moo woote ci. 28 avril le 28 bi waaw. diggante Alioune Seye a ak Coens ak waaw loolu arène nationale lay doon waaw waaye insha allah rabbi am na yeneen affiche yoo xam ne le 4 mai le 4 mooy woote borom Diouf fi production le 5 diggante Eumeu Sène ak lu ko jiitu le premier le premier moo ko jiitu Franc Bombardier ak production moo ko tëgg waaw waaye le 5 mai Eumeu Sène. Eumeu Sène ak ki nga xam ne mooy Sa Thiès. waaw Alburax moo ko wootee. waaw waaye le 9 juin. le 9 mai. le 9 kan moo wootee. le 9 mai kan moo wootee. Yamoussoukro production. diggante kan ak kan. Baye Mandione Junior. ak kan. ak ki nga xamante ne moom mooy Batista. Baye Mandione Junior Batista. Batista waaw. le 19 Ndiaye production war a ñëw le 20. ki nga xamante ne moom mooy Modou Baye Fall borom moom moo production war a ñëw. léegi benteñee ak loo karam la ñuy woo. aywa ah yóbbul ma benteñee benteñee benteñee paas paas paas.